la star planétaire, le grand Youssou Ndour. salaamaaleykum ma ne ma balaa may balaa continuer dama leen di wax ne que dañoo prévoir quelque chose pour campagne électorale bi waaye comme bés bi dafa mag il faut ma ñamal leen ci tuuti waaw il faut ma ñamal leen ci tuuti ndax gëj ngeen maa gis gëj ngeen maa dégg ci lang gi waaye li fi ne woon dara jógewu fi la ma waxoon président Macky sàll moom laay waxaat ànd ak yow ngay liggéey ñuy ànd ak yow Sénégal di bég kon nag may may ma ci bi tuuti rek gars yi dégg ko danañ ko yeggal bu campagne électorale bi pare ci lay morso bi di pare di dugg ci campagne tegal ma ko tuuti Je veux vivre. Mane doyul de doyul de doyul de sa doyul sa doyul sa ku sopp président yoxul ci kaw waay ñu dégg la waay jërëjëf jërëjëf jërëjëf jox ma jox ma lii jox ma lii jox ma lii allo alo alo allo ma ne ma ne gàtt lu gàtt rek lu gàtt rek lu gàtt rek maa ngi leen koy ñaan lu jat rek président Macky maa ngi lay nuyu di nuyu président Alassane Dramane Ouattara di nuyu président George Weah di nuyu sunu président bi nga xamee ni que moo nekk Mauritanie muy Aziz Abdou Aziz di nuyu président Adama Barrow di nuyu waaw dama ne gérer réew gérer réew premier ministre Guinée-Bissau gérer réew du ay discours gérer réew du ay taf gérer réew. ay ambition la. bu ànd ak dal. gérer réew. sérieux la. gérer réew. vision la. boo xamee dafa ànd ak méthode. président maki PIDC. dëgg la. autorité. autoroute yi ba Mbour nga jël bato yóbbu Casamance pont Farafeñe Ila Touba waaw ma fi fii ma yem fii doon li waay xam nga ni xam nga ni du damay yokk rek mu gën a yokku waaw ma ah kon président Macky Sall président Macky Sall yooyu mooy bilan bi gis nga affaire bi du coow nañu dem wan ko nit ñi bilan baa ngi fi bilan bi ku ko jox yomb na liggéey bi yomb na dëgg la président gis nga euh, inauguration yi il faut nga xaw ko kii ta piano piano nag tuuti président yaa ngi gaañ nag piano piano piano piano président yaa ngi gaañ nag te fi may jeexale mooy dégg naa la nga wax ci benn télévision ne boo gañee danga nga gën a ubbi gën a yaatal man xam naa la foofu doo fa wéet maa ngi sa wet jërëjëf mais Youssou Youssou Youssou man fenn laa lay tëjale da nga def nii yaa ko def dañ koy wax wax leen fii ku fi def lu baax ñu waxal la ko mani yaa ko def président dañ koy wax yu fii ku fi def lu baax ñu waxal la ko jërëjëf merci merci merci beaucoup oui absolument là merci merci merci à Youssou Ndour merci Mbaye Dièye Faye merci bien alors euh, Nafissatou alors euh...